ñu ngi dellu ginnaaw ñu ngi jël seen soldaar di leen delloo ginnaaw parce que du baax fañ jëm du baax ñi ngi dem di leen yóbbu ci beneen groupe bi nga xam ni dañuy dox ak tànk nga xam ne seen taxawaay ci xare bi taxul mu am solo ah li yàq na seen fexe gi doon fexe pour mën a lan bët baaraasu armo liwaa u sams bi nga xam dañ ko belende wala ñuy jéem a àgg ci ngànnaay yu bari yi nga xam ne moom la armo liwaa u sams am nga xam ne doy na sëkk pour continuer guerre bi nee na soldaar yi soldaar yi li waa u samsi ni ñuy xeexee garaaw garaaw na ni ñuy xeexee ñu ngi ñoom dañuy xeex comme ni seen ngëm yàlla toll ni ñu gëme borom bi tabaraka wa taala gëme ko Seydina Muhammad ci doole jooju ak ngëm-ngëm ngëm-ngëm boobu lañuy xeexe parce que ñoom ñëpp dañoo seede ne an laa ilaha illa allah wa yashhaduuna ñuy seede ne anna muhammadan rasulullah xeex bi metti na mi ngi continuer moo wax nag ni xeex yooyee nga xam ne yonent bi alayhi salaam sayyidina Muhammad xuusoon na ko ànd ak sahaaba yi kontur yéefar yi ci jamono booba xeex yooyu bi nga ko seeti moo gën a metti moo ëpp doole lool ci xeex yi nga xam ni moo xew ci jamono bii nga xam dañoo am dégg nga ay armée moderne ci suñ jamono bii parce que jamono boobee jamono ak sahaaba yi ah xeex ba dafa amoon secret amoon na miracle mooy lan nee na daraaf bi masaana raf-rafi bahru xamiis ci boppam day yolal ay vague yu naaw bay pesant ci ay jàmbaar nee na drapeau boobu masaana raf day xam le ne am na soldaar yuy wàcc jóge asamaan yoo xam ne gisuñu leen leen kenn du leen gis yàlla di daan renforcer ci xam-xamam ak xereñam arme jullit yi mu indi leen ay junniy junniy malaaka yu ñu tàggat ko defee malaaka yooyu dañ daan xeex ànd ak eh, yi islaam yi contre yéefar te benn xaacu malaaka moo gën a raglu xaacu missile bu explosé mais benn dóoru malaaka moo gën a mun a rey alors benn bombe atomique bu explosé nee na yonent bi alayhi salaam ba mu sànnee xeer ci loxoom mu sànni ko yéefar yi ñu dégg xeer yi sàbbaal ci loxoom ñu explosé ci kanamu yéefar yi mu ëpp doole junni ay bomb ay miin yu explosé moo tax borom bi ni ko ne leen reyu leen leen waaye yàlla moo leen roy ba nga sànnee sa xeer yooyee nekku yaa sànni de waaye yàlla moo sànni li tax ma def loolu nag borom bi nee na pour bégal leen ak dalal seen xel parce que ndimbal ci yàlla kese la mën a jógee dinaa leen dimbale ko defee moo wàññi doole yéefar yi da nga ne na këpp amante ci njariñ ko defee ñu ñibbi sooy loolu yàgg leen yàgg na leen dal ñoom yéefar yooyu doon xeex Seydina Muhammad jamono booba drapeau bi day yónnee xeetu yéefar yi mu yónnee ko ci lëlu jullit yi bu ko defee yéefar duñ leen mas bett fu ñu waajee rek jullit na xam ne yéefar yaa ngi ñëw nee na drapeau bi boobu daana upp alors wesaare ngelawu ndimbal ngelawu ndimbal lay tasaare ngelaw boobu day upp toujours ci côté lëlu jullit yi mu di leen dolli ak cawarte ak ñeme ak njàmbaar nee na drapeau bi daana upp di raf-raf yi daal di sànni tiitaange ak ragal ak buqat ak tàggoog sago ci xoli yéefar yi da nga dem sax mujj boo leen xoolee dootoo xàmmee kan mooy gaynde kan mooy xar jàmbaar ak buqat xàmmeetoo leen ah man Abdourahman ma wax ni gis ngeen miracle yooyee yàlla joxoon Seydina Muhammad ah ba léegi mi ngi fi de day toxu rek dem ci karaamaatul awliya yi <laughs> awliya awliya yi wàllu yu xeet wii di xeetu jullit xanaa xamoon ne gaynde secret bi mu yoroon ci wàllu ñaw ci wàllu ñeme ci wàllu doole ci wàllu raglu ci wàllu pouvoir mais day tax dem ci ay xaloogam xaloog mooy doomu gaynde amul sikki sàkk sax li may wax nii moo tax way ko benn sënun te haadathuma saayixu xaadatun li tawaalii zuhri daraari waqdi affaire bi lii rek la affaire day toxu dem ci ay mag dem ci ay kilifa dem ci ay nit yàlla te toxu jóge ci biddi yu leer jàll ci yeneen ba tax koo ci dajeel démb ak tey ak suba dangay ngay wax ne daje naa kay sang ci ñoom mi ngi ñi ngi mel ne biddiw yi rek yi nga xam ni kii riñaan da ciy xool du mas réer oh ali nee na sendew dëkk bi nee na tekk dëkk bi nee na tekk dara yëngootul ah nañ dellu guerre bi jeex na kon armu li sams gañ nañ nooni Seydina Muhammad yi de nee na ken kenn yëngootul nañ dellu dëkk ba o oh, gars yi kon au revoir bismillah ñu daje fële li waaw sams am ay information yu xam leen ni ci mbetteel de ne bateau yooyee xamis ñoom lànk nañ ne duñu arrêté guerre bi yi nee nañ noonu Seydina Muhammad yi noonu yàlla yi tey noonu Seydina Muhammad ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo woo ay misilam ñu yeeleen bahru xamis eh, batu yi nee nañ misili bahri xamis ay élément lañ yu yu noppi jàpp seen jàmbur te dañuy nelaw kon ku leen yee yee leen mooy yee fitna te fitnaa ngi nelaw képp ku ko yee yàlla jéppi